un jour Fou Malade wax na ko benn émission jàkkaarloo mu ne li ma gis place de l'Obélisque ñu naan Sonko Sonko euh, comme koy wax sëñ Touba jërëjëf ñu naan Sonko jërëjëf Sonko jërëjëf Fou Malade bi ko léegi rangé waat na ci ñoom di leen tar bi ba daan ce qui grave émission jàkkaarloo il faut que direct boobu moo doon Youssou Ndour wala Bouba Ndour ci lay dàq Fou émission boobu ba pare procureur jëli ko luy ndey émission jàkkaarloo nga ne Sénégal il faut de retour fi tu invites les gens à l'assassinat au meurtre mooy yaa ngi oote ñu rey ay nit suufu maral moo ni émission jàkkaarloo bu le passé il faut de retour ci Sénégal gi kooku bu doon procureur fekkee ne émission bi di def liggéeyam waratoon francëram jour boobu Youssou Ndour ba amoon fulla ma Ndour jour boobu lañ koy dàq émission jàkkaarloo deret nga Sonko ak ñi mu àndal gi mu seeti tey dégg naa ñoom lay seeti moo yey la fañ mbaam lay faral ce qui se ressemble s'assemble xale yu réew yëpp fa war a nekk réew ba dof waa yaram maar ko wax xamuñu tus kenn bëggul doom ji mel ni ñu nekk waa yaram maar benn Sénégalais bu ko jur doom mu nekk yaram maar mel ni ñu mel ni ñoom ñu ay extraterrestre fii di Abdoulaye Wade daan ko bul forcé di tudd loo xam ko tudd di tudd lu bon a bon bi mu ne Abdoulaye Wade bul forcé ñem man man ñemewu maa wax bi ñu ne bul forcé réew bu dof xale saaga réew bu dof ce qui se ressemble s'assemble moo tax ma ne depuis ba Sonko dëgg-dëgg Sénégal saaga lañ gis Sénégal sos Sénégal fen Sénégal manipulation Sénégal créé inventé ay affaire ni Adji Sarr dof na dégg naa dañu Adji Sarr dafa dof léegi Adji Sarr démb ci guddi bi ñu waxtaan dafa ree ba dof maa ngi ne da ngaa dof léegi ñu ne am na benn boo euh, jëbu fuité entre Adji Sarr ak ak ak Sidi Sidi Baye xaw ma am kuy wax ñu ne Adji saar la mii ñii est-ce que ay gor lañu ñii lu ñuy fenee la ñu noyee fen nañ ba nëpp fen rek pour jël réew fen Ousmane ko fen na ba nëpp billaahi wallaahi talaay te bu ñemee dëgg na jël ka Aliou Sall mi fenaloon ci pétrole bi ci xaalis bi dafa teg kaamil waat fen na fi ci pétrole fen na fi ci 94 milliards fenaati na fi ci membre ci ci Mansour Faye au moins ñetti fen yi Sénégal yëpp teg seen bët kooku kan ko su réew mi fenkat dina ko wóolu ba dina jox réew ku ñàkk fayda ba dégg sa réew fenkat ku ñàkk fayda nga la da ëllëg yaa ngi teg sa billaahi wallaahi taalaay nañ wax El Hadj Diouf mas da fen ci lii donc plainte bi mooy premier point bi léegi plainte boobu rek du ma ci am médiation Matar Gueye booy boo toog yow doo juge doo procureur yemal fi nga war a yem yem leen ci promouvoir la religion def def médiation bu amee problème politique entre les hommes politiques mais médiation judiciaire mënoo koo def boo amee ay problème justice du imaam yi ñooy régler problème justice fi mu na nekkee benn kooku sëriñ si seen place nekkul foofu ñun ñëpp gëm sëriñ ñu gëm imaam yi ñuy jiite duñu duñu duñu duñu julee bu ñu dee yàlla na yéex su tudd doom yi ñu fonk leen lool mais ku nekk ak sa domaine justice mënuñu ko tëj ni léegi yéen imaam yi yéen régler problème justice xanaa kenn laa ko nangul imaam Ndari Diop le grand juge et le grand imam du tribunal de grande instance de Dakar il est juge et imam maa koy nuyu sama xarit président Ndari Diop. deuxième point bi mooy génne benn image plainte bi nee pour crime la assassinat incendie volontaire ak destruction des biens samay biens yàq Ousmane Sonko directement la porte plainte xam nga dañuy muus naan aji aj plainte contre X la dañuy dañuy dañuy nar plainte contre Ousmane Sonko la woon réquisitoire mooy contre mais fu ñu waxee ne plainte contre X ko la ñuy ci maay noonu nit ñi may leen juwaay alors léegi su ñu ñëwee ñëw ci manipulation bi ba ba dajee ak Papa émission balance mani Ousmane Sonko lu may ragal def test major Kandji wax leen lan mooy test ADN mudd juum ma ne man de bi ñu ma accusé Paris dama def test ADN ñu ne ma gongo yow laal ko kenn ndaw si ne sama pooj pooju gauche ba nga laal loolu de mooy viol bi ñu wax il a caressé ma cuisse gauche France dañ lay accusé viol ngay génn man la muy jàkk moo ëpp doole mais DSK moo ëpp doole France Sarkozy bi ñu ko condamné barki dee mu Ndiaye nekk na président France man El Hadj ñaan conseil ba intervenir ban conseil France amul intervention de kooku fa def ñu rek sa ndigg de amul sëriñ bay oote